wa ñangat biñ ci jëk am moy sant yalla ndax té ciowul bo am bi mu amé wakam. nek nekk nah, yaa dégg ñu na wakam wakam wakam nga gis ñëpp gis la ci xew ñu jël suñuy frère suñuy suñuy suñuy rak suñuy naatangoo téye leen donc ñun waru gor wa wakam moy li waron rek mooy si côté sport ñu topp ko jusqu'au bout donc li ñuy mën def mooy jaajëfal suñu dirigeant yi tamit tamit euh, nouvelle ba mu ñëwee aussi kontaan nañ ci mais avec humilité nag parce que circonstance yi mu xewee mënuñu si kontaan bu bëgg parce que kenn umpaloo am na ay deewu si am te ba kenn ba buurot rek dafa dafa dafa fort rawatina. aussi ñun ñëpp sénégalais. Wow, avec euh, beaucoup d'émotion parce que aussi euh, décision bi on s'y attendait donc nañ ko xaar lu bëri mais avons euh, aussi dañu am une pensée religieuse à nos compatriotes de Mbour parce que le Sénégal bien là, te ben lay doon donc bu ñu réhabiliter ci championnat bi. Euh, defe tasse tasse, moom un sens suprême bu qu'elle ne dafa jël une décision pareille Bon, xamante ne bi Sénégal équipe nationale Sénégal Tasse arbitré na leen ba rejouer ce match contre euh, Afrique du Sud kon war nañu xam euh, la fédération sénégalaise et la ligue man bu dina am ay fourmillement fourmillement pour lan pour nous mbir amatee ñu baña décision parce que Allah va-vite la jël décision et je vais vous dire un secret et exclusivité je je voulais pas le dire mafia moi à la ligue moi au niveau de la fédération et il faut que les gens ouvrent les yeux pour baña espoir jël sport andi ngeen Wakam bu ñu defee ne ay lébu lañu c'est des intellectuels wees Wakam bu ñu defee ne ay indigènes lañu nax nañ seen bopp ñun sérénité la ñu am dañoo yaatu yaatal waaye nag baadoolo boo ko yaatalee yow lay ëlbatu doon c'est ennemi. La, la fédération là s'est précipitée, vous voyez. Donc, et tous, et tous ceux qui ont pris, par exemple, cette décision-là à l'encontre de Louis Wakam, ils, n'ont pas vécu ces événements-là un président qui était, comment dirais-je, absent, et d'autres encore responsables du football, hein, qui n'étaient pas présents au stade. Et puis ils ont, donc, euh, je peux dire, euh, comment dire, comment peut-on programmer Wakambour une finale, connaissant par exemple euh, ce que ces deux équipes drainent comme supporters. Oui, il fallait que moi un service d'ordre adéquat et nombreux pour pouvoir euh, jubiler tous ces trucs-là, ces dépassements. ah décision bi ñun xamoon nañ ñun ni lay démé mo taxone ñu ànd ak calme depuis bi ñu ay daan suñu kaw ba légui parce que xam nañ ne ñu def teguñu ñuko ci yoon té ñun wax dëgg fa né yalla manam ñun dañuy top suñuy ndigalu kilifa parce que dafa xam rakka Mak, Mak Baye, ñun loolu def réaction créé ñu ben problème ñu ngi jaar fi ñu jaar ci 1951 nous fondé équipe en 64 on est la seule équipe l'équipe la plus titrée au monde le village le plus titré au monde. Euh, en 64 la coupe on avait inscrit 64 buts pour n'en encaisser que 3 am 64 victoires en autant de rencontres on a vaincu toutes les équipes et on venait de la troisième division kon on lo xamantene li bu fekkee ne yu yi équipe bu wakam nit ñu dal lañu mais ku judd ci sport sport nga yek mais ku juddowul ci sport nak <laughs> comme ni gaay rek de doole ngay doxé bo doxé doole après xel dal di jaar sa gannaaw dal di lay nax mo dal CR euh, sec man CR sec CR euh Augustin Senghor ak matarba dañu waroon démissioner buñ gor mais amuñu culture d'émission parce que booy dund ci ruuxalante di sa yaram dootu yëgati dara do sentirati dara mais bu fekkene ne rek ngay dox mais il faut nga am le so comme les Wakamois et les À Ah oui, non, non, non, parce que le football, il faut crier, par exemple, euh, des supporters tout autour. Oui, donc le fait de jouer à huis clos, là, vraiment,

mais ñu bàyyi ngir yàlla ñu bàyyi wokaam bi ñuy ŋañña di di di def loo xamante ne nekkul loolu baaxul. Mbour fàtte xam ne wakaam dafa deful dara bay fàtte. fédération ak ligue bi ñoom li ñu def dañ ko teg si lu leen neex teguñu ko si dëgg yàlla mooy àtte dëgg dëgg bi moo ñëw parce que wakaam deful dara. ñoom mbuur waa bu fekkente ne ay sportif lañ xam nañ lii yoon ak li dul yoon ñoom bu ñu topp seen seen euh, bànneexu bakkan rek di wax lu dul yoon quand ñun am na lu fi jaar loo xamante ne metti na te kenn waxu ko kenn ajul équipe bi Casa Sport Wakaam xeex nañ fi xeex bu metti boo xamante ne moo gën a metti bi yàlla dafa dogal mu euh, mu sedd rek mais bu Casa Sport Wakaam moo gën a metti bi fuuf waa Mbour waa ñoom door nañ fi ñaari tali def lu nekk kenn aju leen kenn defu leen dara lu tax Wakaam indi rek ñu ne Wakaam lu Wakaam Wakaam Wakaam Wakaam deful dara dañ ñu dimbali ñu bàyyi ñu ñu nekk suñu jàmm. waaw am nañ si yaakaar ndaxte dirigeant yi bi ñu demee ba ne équipe bi day participer. je pense que amone nañ ay plan yu nga xam tégon nañ ko té xamone nañ ne tamit am nañ yaakaar ne nii lay mujjé donc jël nañ ci matukaay biñu démé ba engagé won équipe bi war na mëna a dem rek donc je pense que ñom ñi ñi ne ci kaw du yor nga ko équipe bi jël nañ seen matukaay yi ko waral donc am nañ si dal ko rew war nañ mëna dabu championnat bi ba yalla lu muy may aussi ñu jël. voilà arrangé wu len parce que xam nga adina bi légui adina lobby la kenn gënul mus kenn mais. alhamdulilah damay remercier le peuple Wakamwa de par leur sérénité seen calme calme bi. Mom la mag ñu union sportive wakamoise et tey jii rek la ñuy door suñu bu nekk tàndar nañ ñu ko Casa Sport jàppan nañu fi suñuy xale di len ki keroog yalla nangou rek mais keroog bu fekkone mem même même même même fay bu fekkone eh, affaissement wu tribune bi dafa am kon wakam ñom ñoy jëk konté ay 33 morts ba paré ñu di ñu ay vélo vivant di ñu ay vélo di ñu ko sanni keroog joju bi ñu ñëwé di arbitre euh, di arbitrer comme ni ñu arbitrer ni dañu jox gain de cause Casasport, Amman nous, nous sommes dans notre coin. Toujours, Wakam, nous sommes dans Nous sommes récidivistes. Je vais vous donner un exemple pour vous dire que vous concrétez. Mour, Anjambour, Kerok, 2h du matin, le Wamburi, le le Birmour. Contre. Euh, euh, Nyaritali. Euh, kérok dañ leen dàqa di leen dàqa ba jam ñaajo ñoñu 2h du matin lañu dugg seen biir kër mais c'est des éléments incontrôlés xalé yi légui ño amatul yar amatuñu teggin mais buñu jël rek ne ay wakaamaa lañu rek dal di jël lepp inculqué ñu ko gis nga mu ngi ni yalla jox nañu dëgg yalla jox nañu dëgg te dëgg bobu moy wéy Ils ont vu pur, ils, pas, ils ne se sont pas prononcés. un sec de grâce Nous, avons ay mbokkam oo oh, wax ko mu démissionné ñu am culture de démission au niveau du Sénégal sinon geneen gàcce dina leen dabaat waaw euh, wax naa ko ci sama début interview nee naa ne la ñun Wakaamaayi bi Nous avons décision bi toujours on est endeuillé parce que c'est l'espoir qui avait perdu 16 ou 10 euh, personnes. C'est l'espoir, c'est le Sénégal. C'est pas Mbour, c'est pas Wakam, c'est le Sénégal qui avait perdu ses, siens. parce que instance yi nga xam ne ñoom ñu ngi siy dox ñu ngi ñaan yàlla aussi fi ñu nekk xarkat yooyu yàlla jël leen fi nu mu gën a gën a gaawe te am nañ si yaakaar ñoo ñu tamit si précipitation la ñu demee si kaso bi de grâce ñu ngi laaj les autorités judiciaires ñu seetaat seen cas rek parce que lépp loo loo def ci. Euh, parax parax réccu rek moo cee topp. waaye nag suñuy doom tamit ñu ngi ci équipe yi dañuy football. si weesoo ñenn ñi dañuy football nawetaan waaye histoire bi bu mu amee kenn bëggewu ko woon noonu suñu sañoon football bi dañ koy football ba mu jeex ku nekk ñibbi waaye li yàlla dogal tamit ah ay xale yoo xamee ne ay mag nekk fa ñu leen doon difi moo indi lii yëpp yàlla naka fi yàlla yemaale ndëkk waaw ndax mbuur suñuy waa suñuy doom lañu ah suñ ca teg fa am tamit doom lañu suñu ñaari doom a woon bon nag yàlla si yàlla def jàmm. deppa ñu bépp jullit mees wakaam ma suñuy am benn problème wax dëgg yàlla waaye nag lu xew tamit ñu ne wakaam la waaye loolu tamit du dara waaw du dara addina mel noonu waaw yal nañu yàlla jàppale nag jàppale waa muur jàppale waa wakaam ba yal nañu yàlla déggal si jàmm ak salaam